قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد ابن محمد ابن الحسن ابن عبد الله الشناوي الفاسي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الإلحاف الخل الوفي شرح الأنفاذ الحزب السيفي برسنال المتصل من أول الكتاب إليه قال في الحكم الرجاء ما قارن وهو عمل وإلا فهو أمنية إلى آخره Euh, fi ñu yemoon kon ci jotaay bi weesu mooy ci fi nga xamante ne moom la xisbu sayf yu maanaam fi mu doon waxe naan allahumma yu ma am ci cant gi yi muy sant na allahumma yow yàlla mi ci tur yu rafet yëkkat yow mi ak melo yëkkati ku yi inni naka man sa jàmbu doye bi di bi ahmaduka maa ngi lay sant wa antata yow al almahmudu yaay ki ñuy sant ci dëgg wa anta te yow xam hamdu ñeel sant ahlun yow yaay ki ko yelloo wa ashkuruka te maa ngi lay gërëm wa anta te yow almashkuur yow yaay ki ñuy gërëm ci dëgg wa anta te yow li shukri ñeel ngërëm ahlun yow yaay ki ko yelloo kon nag maa ngi lay sant di la gërëm a alaama ci kaw lépp li nga xamante ne xasastani moom nga jagleel ma bi ci moom min mawaahib ci may arraxa ibi fóla diko te ñu muy nekk yu ñu xemmem ci ay xeeti may lépp yi nga ma defal nga jagleel ma ko nga xamante ne danga may damay gis ne lii particularité nga ma ci defal mm-hmm. wa la wa aw salta wa te maa ngi lay sant tamit di la gërëm ci li nga xamante ne aw salta jokkale nga ko ila yi jëm ci man min fadaili ci ay ngëneel yoo xamante ne ak sanaa'i yooyu ko jóg defar gi la mm-hmm. maanaam ni nga ma defare tabaxe ma noonu mm-hmm. ngëneel yi nga xamante ne moom moo aju ci xeetu yooyu noonu maa ngi lay ci sant di la ci gërëm wa awlaytani te nga méngale ma bi ci moom min ihsanika ci rafetal gu bari gi nga xam te ne moom ngay rafetal jëm ci man wa bawwatani te nga dëkkale dëkkale ma bi ci moom min mazinati sidqi ci njortal dëgg indaka fa yow maanaam lu fait que nga dëkkale ma foo xamante ne day tax tout le temps may xalaat rek ne maanaam may xalaat ne tout le temps lu rafet rek nga may defal mm-hmm. maanaam da may dëkkale ci njortal dëgg ca yow place bu wér bu rafet laay am ci yow te mooy soit aljana nga may dëkkale ci àllaaxira te àdduna tamit aljana rek laa fi nekk tamit aussi wa anal te wa te maa ngi lay sant tamit dërë gërëm ci li nga xamante ne anal te moom nga jokkale moom nga nga ma jotele bii ci moom min mi na nekk ci ay xiiwal alwaasilati yee aju jokkoo ila yee jëm ci man wa axsante wa te maa ngi lay gërëm tamit di la sant ci li nga xamante ne axsante moom nga rafetal bii jëme ci man ma bii ci moom ilayya jëme ci man kulla waqtin ci bépp waxtu min dafa ci jañ albaliyati ci ay ay ay ay natt am ni wëllif ma maanaam natt yu metti yi nga xamante ne moom nga ma jañal euh, te yi ci gën a metti gën cee doy waar mooy kéefër ak yenn yenn jikko yu ñaaw yi yenn jikko yu bon yi ak tamit ak yeneen xeeti natt yoo xamante ne saa su nekk yaa ngi mu ciy musal yooyu yëpp maa ngi lay sant di la ci gërëm wat tawfiq te ma wa te maa ngi lay sant tamit di la gërëm ci li nga xamante ne moom mooy li nga at tawfiq dëppale gi nga xam ne moom nga dëkk la ma lii ñeel ma wal ijaabata ak nangu gi nga xam ne moom ngay nangu li du'a yi ñeel sama ñaan xëy na jamono ji nga xamante ne unaadi ka maa ngi lay ñaan daa'iyan di maa ngi lay woo daa'iyan di aji ñaan wa unaaji ka maa ngi lay déeyaale tamit raaxiban di aji xemmem wa ad'uka te ma lay ñaan nag nekk koo xamante ne ba ma lay ñaan mutadarri'an maa ngi aji toroxlu musaafiyan di aji sellal baari'an di toroxlu toroxlu gu mat sëkk tamit wa xii na te maa ngi wa maa ngi lay sant tamit di la gërëm xëy na jamono ji nga xamante ne arjuka maa ngi lay yaakaar yan sama yaakaar bi aji dëggu fa aji du ko ma fekk la nag kaafiyan ngay aji mat sëkk li nga xamante ne moom lañ la doon yaakaar wa aluuzu te maa ngi te wa te maa ngi lay sant tamit di la gërëm ci li nga xamante ne aluuzu maa ngay làqatu bi ko ci yow fil mawaatini ci bërëb yi kullaha lépp le fait que place yépp mooy làqatu ci yow léegi nag foofu la ñu amoon place boobu ci sharxa bi euh, gisoon nañ ci fi nga xamante ne moom la Cheikh Zarruq rahimahullah ci sharh al-Hikam euh, fi mu naan euh, yaakaar moom mooy xem maanaam moom mooy xemmem li nga xam ne moo nekk fa yàlla mm-hmm. mais ci charte ci condition ci ngay jëf mm-hmm. ci di jëm ci sabab bi tax nga mën a jokk am jote ci loola voilà parce que leneen lu dul loo maanaam leneen lu dul loolu du tudd yaakaar maanaam yaakaar pour foog nga def luy tax li wane comme ni ñu koy gisee insha allah ci kanam ñu ci yaatal maanaam ngay def luy war a tax nga mën a jot ci li ngay yaakaar euh, mu indi euh, ah, mu ne am na aay yu bari yu ci yu ci wax mais aay moom aay bi mu indi mooy qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim ba aay ba jeex mooy bi nekk surtout Zamar euh, ci jotaay bi weesu moom lañ jeexale woon ci yaatal ko même ci affaire wu temps nit ki ni mu war a régler temps voilà ak tam ci li ci aju ci ñàkk perte sa temps ak surtout di nekk tout temps ci sàkku xam-xam ci di jëf lu baax voilà mais fii kon dañuy gis ne euh, dafa wax ne euh, euh, maanaam am na ñun aaya yi nga xam ne lañ gis ne tamit moom maanaam mooy gën a wax ci wàllu ya kii mooy bi nekk sootu Baqara ci wàllu yaakaar na na na ladina amanu walladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaa'ika yarjuuna rahmatallah maanaam ñi nga xam xamante ne dañoo gëm te dëgg tey gàddaay maanaam di gàddaay kon di jóge ci lu bon di dem ci lu baax ñu ne waaw ñu ne ba pare ñuy kër kër fu ñu tool di def seen yitte ci di jëb jublu ci yoonu yàlla ñooñu ñoo yaakaar yërmande ak yàlla waaw loolu aaya boobu moom mooy aaya bi gën a définir lan mooy yaakaar waaw léegi xaala wax na fil xikam ci xikam yi mu ne ar rajaa'u manam al imam kan ibnu Ataa'illaah as-Sakandari radiyallahu ta'ala anhu moom mu ar-rajaa'u ma qaranahu amal wa illa fa huwa umniya ar-rajaa'u yaakaar ma moy li nga xam qaranahu qaaranahu lëkkalewoo nag lëkkaloo na ak moom al amal jëf amalun jëf amalun jëf wa illaa bu dul rek fa huwa loola umniyatun xemmem lay tudd mooy convoitise bëgg-bëgg waaw su ma sañoon voilà mooy mooy mooy lii lii lii lii lii sëñ Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu wax ci xasidaam boobu mu naan inna rajaa la fi waadin kaza tamam del tegtaloo dara door a yaakaar ndajug alal ya maanaam yaakaar ar raja inna raja la fi waadin moom dafa nekk ci benn xur benn tund naan lii mooy yaakaar ñu ne waaw mu ne kaza tamam tamam tamaa mu ak umniya ben la moy xemmem dafa nek feneen léegi mu koy firi nak ci wolof mu ne del tek talo dara door a yaakaar da jëkk alal la waaw su fekkente ne man damay xëy ci ben entreprise ba fin du mois amna droit yakar ñu signer ma chèque waaw loolu si loolu nag sama yaakaar la loolu yaakaar la tudd mais su ma toogoon ba weer wi dee xëyuma fenn def ma dara ma toog naan sëy rendement bii de jub si na jamono ji voilà loolu mooy loolu xennem voilà mooy juste que dama am envie que que ñu signer ma chèque donc loolu lay wax ni mu ne xaala wax na Sayyidi Muhammad ibn Abbad mooy ibn Abbad rahmatullah alayhi moom ah, ar-Randi ar-Randi rahimahullah mom tamit dafa sharh Hikam sharh bu am solo bok na ci sharh yi gën am solo ci ci sharh Hikam yi mu ne ar-raja'u yaakaar maqaamul maqaama la boo xam ne sharifun bu tedd la min maqamatul yaqin ci maqamatul yaqin en fait walu yi ci sen cheminement ci yoonu yàlla dafa am ay maqama yo xamne dañu classifier maqama yi ba pare daf ci am maqama yo xamantene yoyu nit ki su koy incarner loolu la ñuy tuddee maqaama maanaam maqaama yooyu maqaamaatul yaqin lañ leen tuddee c'est-à-dire que mooy les station de la certitude station maqaama nitu yàlla les demeures yi nga xamante ne kooku certitude la maanaam day wane ni kii dafa am gu kóolute gu wér ci borom bi subhaanahu wa taala euh, boobu bi ci gën a tuuti mooy tuub tawbatu moo ci gën a tuuti mm-hmm. mais moo ci gën a jafe mais ma maqaama suñ ko waxee ci ñoom wuñ ci foo xamante ne parce que maqaam mooy station mooy fi nga xam ne fa nga taxaw mais jubluwuñ ci foo xamante ne da nga fay taxaw rek après doo ko évoluer ci wala boog foo xam ne da nga fay taxaw boo demee weesu nga ko xam nga tey fi mu toll bu ma jógee woon Lyon dem Paris dëkk yi may romb yépp wala alt yi may romb ci fu ñuy génnee ci autoroute du nu mu tuddati. péage euh, non waaw am na air air yi. voilà air yi. air yi bu ma ko wàccee maanaam wala boog ci place yi daal dëkk yi fu ma ci romb ba dem mooy banaa ko sama ginnaaw. Mm-hmm. alors que maqaama yi nga xamante ne moom lañu ñu wax nag ci wàllu yàlla boo romb da koy yóbbaale. Mm-hmm. voilà c'est-à-dire amul loo xamante ne maanaam par exemple bu ñu naan waa ji romb na tuub dem ci zuhdu maanaam dëddu àdduna du ne duñ ne rek romb na tuub dem dëddu àdduna rek acca c'est bon voilà ce qui léegi moom affaire tuub lépp lu aj ci tuub déedéet cest à boobu bu paree dem ci dëddu àdduna et cetera noonu la demee léegi rajaa u hmm, mooy yaakaar ak al xawf da daer xawf moo ko jiitu maanaam xaw fu mooy tiit googu ngay tiit ci wàllu yàlla hmm, boo jugee ci dëddu àdduna foofu ngay dugg maanaam da ngay commencer nag tiit ci wàllu yàlla et cetera après nga yaakaar yàlla raja ñoom mais ñoom ñaar ñooy ànd c'est-à-dire que donc mënoo ne nit ki mënul nekk koo xamante ne euh, day yaakaar yaakaar gu goo xamante ne du ko teg fenn déedéet yaakaar mooy li nga xam ne moom la lay wax yaakaar mooy li nga xamante ne moom la alal maanaam moom moo dëppoo ak maanaam dafa ànd ak jëf dafa ànd ak jëf ba noppi am na beneen détail bu am solo ci wàllu yaakaar boo xamante ne mat ci wàllu maqaama yi mooy mat naa bàyyi xel mooy il faut que mu stagner maanaam maqaama maanaam il faut nga taxaw ci am sinon tuddul maqaama xaal la tudd maanaam état da rek. passager la voilà donc c'est un état passager ci nga nekk mais nekkul maqaama boo xamante ne moom nga nekk. donc maqaama balaa ñuy tudd ni lii kii nekk na ci maqaama sàngam maanaam il mu stabiliser wu ci loolu noonu de telle sorte que loolu jikkoom lay doon totalement. comme nañ jël exemple yi gën a xamante ne ñoo ñuy gën a neex a illustrer mooy comme lu demee nekk muñ loolu tam ci maqaama la as-sabr ak ash-shukr après parce que après xawf raja après sabr ak shukr yooyu ñooy ay maqaama lañ yoo xamante ne ci maqaamaatul yaqiin yi lañ bokk muñ tey bu fekkente ne dafa am benn affaire bu ma dal ma jéem a muñ xam nga diir bi day metti day mel ni sama xol bi dañ koy génne day mel ni mu nekk ci kanam ci put bi fii mais maa ngi ba ma taxaw ba def li nga xamante ne moom laa war a def am comportement bi ma war a am loolu mooy muñ naa muñ naa tey mais tuddee buñ ko maqaama ci man de xaal la tudd ci man état la instant bii nii bu ñu demee nag may yëg di maanaam tout le temps may muñ c'est-à-dire affaire bi dalaan ma da ngay gis sama xol bi doon ñëw mel ni fii la de da gis mu ñëw fii wàcc ci put gi après muy wàcc wàcc ba jekki-jekki nekk fii maanaam ba nga xamante ne léegi su ma dara dalee maanaam day mel ni benn weñ moo naaw romb ma rek dem yoonam maanaam day mel ni benn brise moo dal ci benn garab goo xamante ne aw xay la maanaam du dara du dara voilà c'est-à-dire léegi muñ dafa naturel ci man muñ demee nag ba mu naturel ci man loolu la ñu tuddee kii nag am na maqaamu muñ voilà yaakaar tamit noonu la demee mais ci yaakaar maqaamu bu kawee kawe la parce que ñu bari mënuñu ko incarner parce que dañ foog ne bu ñu nekkee di yaakaar yàlla il faut que ñu ñu ñu bàyyi seen loxo alors que non maanaam cest à benn bu nekk ci maqaamaatul yaqiin yi dafa xaw a jafee incarné tuuti parce que dafa laaj dafa laaj yu bari ba pare dafa laaj yar tarbiya bu voilà dafa laaj tarbiya yàlla nañu yàlla yombalal yépp bu jaaxis sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mu ne kon maqaam maqaamaatul yaqiin mu ne wa huwa te moom yab'asu moom mooy li nga xamante ne maqaama la boo xamante ne day deqil day yóbbu nit ki alal ittihaad ci muy def yitte gu rëy fil amaali ci ay jëf li am na ndax kan man rajaa képp koo xam ne yaakaar na shay an dara talabahu da koy sàkku ah, ndax képp koo xam te ne dafa am lu mu yaakaar da koy lan da koy sàkku xam nga tey mënoo ne mënoo yaakaar dara ba pare doo ko sàkku doo dem defe ji li nga mën koo am toog fi ma toog nag naan waaye man de soo dal moo mën a góofu ndox moom moom kaasu kafe kaasu ataaya moom loolu moom c'est mais il faut pour ma mën ko yaakaar voilà mi ngi nii ko lii exemple la tib la ci yaakaar euh, kaasu le fait que mu leer ma ni kaasu ataaya am na fi fi mu toll maanaam te infusion yi fi mu bu ma ko laajee ñu jox ma ko mooy mooy sañ naa koo yaakaar lii mooy yaakaar ah saa yi teg maa defal ko fa eh. loolu yaakaar na tudd. voilà boo exactement waaw loolu mooy maqaamaat yi waaw boo am rek da ko yóbbaale maanaam tey buñ ne voilà am na lii voilà da yëg voilà contrairement ak tey bu doon ne bu doon bu doon amu ko amu ko. voilà prix kiiwa kiiw kiiwuloo ko nekkagul ci yow naturel ci yow mais yaakaar tamit nii yaakaar maanaam tey fi mu toll bu fekkante ne par exemple e-, examen dafa jot dem examen ba pare yaakaar sama tour nu bind ko ci de loolu xel même la tudd maanaam su ma toogoon daal ni cëy man day déw ma defuma examen sax mais ay bu ñu demoon rek sama tour nekk ci kaw maanaam xam nga loolu possible na ñu def gars yi jury bi kii après ñuy bind liste yi di xool liste yi dugalaale sama tur ci biir liste bi même bu fekkente ne nekk moom waaw mais ba pare attribuer ma benn note boo xam ne xëy na da keneen lañ ko waroon attribuer ñu juum après kooku tamit ñu attribuer ko beneen note wala ñu attribuer ko même note bi wala ñu mel noonu faf nag man ma génn ci ndax ndax loolu loolu man naa ne loolu man naa ne mais sincèrement loolu moom waruma ci sukkandikoo maanaam loolu loolu loolu loolu bu boo ko defee loolu bu ma bu ma bëggee sukkandikoo noonu di jàll samay examen damay damay damay juum parce que mën naa ko am xëy na benn at ñaareelu at bi tamit ma am la même chose par chance mais troisième année bi moom ma ko am maanaam maanaam mënumaa tegtale noonu sama voilà sama tout le temps <laughs> di toog naan waaw man de cey sama turoo buñ ko bindoon ci ci liste bi déedéet loolu xel même la tudd yaakaar mooy ma dem defi ji au moins examen fekk ma préparer kon na ko war a préparé léegi bu ma demee julli toog ah wa légui de yakar na né ah voilà voilà loolu yakar lay tuddé voilà et là loolu la ñu l'espoir wala espérance kon lolo manam, kon lolu manam mbir la mo xamné daf lay pousse ci ngay jëf ndax képp ko bëgg dara da nga képp ku yaakaar dara dang koy sakku wa man xaafa képp koo xam ne ragal na min seen ci dara xaraba day daw min wu ci moom voilà kuy daw dara tamit kuy daw dara kuy ku ku ku ragal dara danga koy daw voilà am na exemple bu ci kii eh, eh, Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu anhu joxe ci ci Zajrul Qulub bi mu naan hmm, Euh, dana bi mu naan euh, fa yaa ajaban man yatlubul naka euh, nan nag fa yaa ajaban min man naara wa naa na'imun am na wala wala wax ju mel noonu daal la wa man yatlubul jannata wa huwa la'ubu voilà <laughs> voilà mi ngi yéemu ci ki nga xamante ne day daw sawara mi ngi daw safara mais mi ngi nelaw day daw safara mm. mais mi ngi nelaw xam nga loolu mënta ne maanaam mënoo toog fi mu toll te immeuble bi nii immeuble bi di tàkk immeuble bi nekk di tàkk ñu naan pompier yi nga dégg pompier yi nga tëdd di nelaw yaakaar na da nga di nga mucc non garaawul ah tëdd fii immeuble bi tàkk sawar nela garaawul ah sawar mucc mucc ah dama koo ragal fekk yow man dam man may wax ne te te man maa dàq wax ne damaa ragal sawara damaa ragal tàkk tàkk loolu man ne voilà léegi imaginer imaginer ki nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy sàkku sàkku sàkku euh, kii euh, moom mooy daw sawara bu àllaaxira mm-hmm. day wax ne ba xam branché nga ko voilà xam nga loolu mënta ne sawara bi nga xamante ne mooy sawara àllaaxira moo gën a tàng moo gën a garaaw moo gën a metti nga di ko daw ba pare fekk yow da nga nekk di nga tëdd di nelaw loolu mënta ne maanaam tëdd nelaw gi mooy da nekk ci maanaam mooy dormir sur ses lauriers comme ni ñu koy maanaam mooy defoo dara loo xamante ne war naa tax nga mën a mucc ci sawara defuloo benn effort boo xamante ne war na laa tax nga war a mën a mucc ci sawar loolu man tamit ni ki nga xamante ne dafay sàkku dafay wut euh, day wut àjjana woowu wala aw bu fekk moom ma ngee moom foo fookat bu ngand la loolu tam manta ne voilà parce que xam nga nit koo xamante ne dafa bëgg nekk milliardaire dafa bëgg nekk milliardaire te rien ak acquis de le départ c'est-à-dire que moom famille bu pauvre la jógee kooku dafa cheminement la effort bu bari la laaj acquisition yu bari la laaj pour bës jot mu jékki-jékki ah ñu koy woowee monsieur le milliardaire loolu c'est kooku c'est un cheminement. dafa laaj maanaam tëdd di nelaw rek moom mayewu ko moom loolu moom man leer na ma moom man moom xaw ma lan mais tëdd di nelaw moom du ko maye voilà <laughs> ndax bu doon loolu la ba léegi bi nekk naa milliardaire <laughs> <laughs> mais imagine nag léegi aljana ak ni mu neexee ak na mu mel maanaam ajjana bi nga xam ne moom lay tudd ni mooy ajjana bu komo bi ah bi ñëpp bokk bi ñëpp bokk boobu lay wax nga xam ne ku ne mën na faa dem ajjana boobu lay wax ajjana boobu ku ko bëgg ay nelaw du ko maye ay nelaw du ko maye mais aussi xoolal léegi nag nit ki nag bëgg li gën a kawe encore maanaam digganteem ak boroomam yàlla lay wut moo gën a kawe yàlla mu foog ne ay nelaw ay akane xol gis nga il foog ñu bàyyi xel loolu nañ il faut ñu bàyyi ko xel bu baax réaliser ko réaliser ko bu baax a baax a baax baax c'est parce que dafa important euh, mooy ne mooy ne ñun lépp lu tedd lépp lu tedd lu ne pour jot ci may yàllaa ngi ci may yàlla mu ngi ci mais dafa am effort bu mu laaj gis nga am na question boo xamante ne léeg-léeg ma posé ko di ko wax mais ba léegi gisaguma ku ma ci tontu tontu boo xam ne tontu bu leer la wala ko ne ma ku ma ci jox exemple bu leer mooy sol kuñ ñu sol naan diw dañ koo sol <laughs> non diw dañ koo sol diw jàngul dara jàngul dañ koo sol xam-xam bi mu yor ni xam borom ko xam bu rëy rëy la mais jàngul dara dañ koo sol loolu ku ma ci mën a indil benn exemple ba léegi gisaguma ko déggaguma ko tamit sa histoire de l'humanité déggaguma ci ku mu sol man déggaguma ko histoire de l'humanité ba pare gisuma ci tamit un exemple euh, parce que sol maanaam il faut xam-xam il faut mu ànd ak benn effort voilà am na nag mayu yàlla ci xam-xam mais kooku kii am xam-xam te dañ ko ko may nii maanaam may yàlla la yore même kooku bu waxee di nga xam ne kii xam-xam bii nii jàngu li nga xam ne xam-xam bii muy wax nii jàngu ko mais ku ko jàng ku jàng ak kooku du nuróol déedéet gis nga boo doon xoolee ñi yàlla may xam-xam te en fait mu nekk loo xam ne euh, jànguñu ko cest à que may yàlla la maanaam mooy may ñi may wax mooy ñi jàngul dara laa wax wala ñu jàng mais liñ jàng bëriwul wala boog ñuy wax ci domaine boo xam ne may lañ ci am rek mais jànguñu ko ñooñu noonu suñuy soo leen gisee boo leen comparé ak ñi jàng di nga gis ni am na différence mm-hmm. da nga gis bu baax différence bi comme dans tout chose ki nga xamante ne par exemple moom ay tabax yii nii yii nii da dëkk may la ci am rek jàng ko maanaam euh, maçon la mus ta jàng affaire maçonnerie nii batima mus ko jàng mais daf ci am may kooku soo comparé ak ko jàng ñoom ñaar duñ benn dans toute chose koo xamante ne parce que day am ay astuces yoo xam ne en fait day am ay astuces yoo xamante ne ki ko jàng rek a koy xam <laughs> ki ko jàngul du ko xam lu may wi rëy rëy nag laa wax lu may wi rëy rëy dina am astuce yu mu dul xam parce que munul du dajale mboolem astuce yi du ko dajale même awliya yi nga xamante ne boroom yi xam-xam lañ maanaam dafa am déjà xam-xam yoo xamante ne moom ñoom mënuñu cee bokk loolu il faut que il faut que am na maanaam ñoom am na xam yoo xam ne kenn mënula cee mënul mënuñu leen cee boole mënuñu ci nekk ay référence munuñu ci wax loo xamante ne dañ koy jàpp ñoom xam-xam yi ñuy mën a am te mu nekk may mooy yi nga xam ne dafa aju ci xam-xam nitu yàlla yi nga xam ne yooyu ay am njàng du ko mayee danañ ko am mais yeneen xam-xam yi comme xam-xam yi nga xam ne xam-xamu zahir yi nii ku ci am may tamit ku ci am may tamit laa bu da nga jàng parce que munu am na yoo xam ne mënoo ko inventé en fait non mais si mënoo ko inventé <coughs> te boo waxee gis nga ku ku rien que par exemple la langue arabe rien que làkk arabe bi gis nga ko yàlla may naturellement ni maanaam ñi arab arabe lay wax maanaam ñi dul yàlla may leen nii ñu am maîtrise ci langue arab bi maanaam ubbi leen ci nii ko ndax fatxu la ci ñoom léeg-léeg bu ñu waxee wala ñu bind mais surtout bu ñu waxee ku dégg ku xam arabe te jàng ko dëgg dina xam ne kii lii muy wax jàng ko wala njàngam des na moom dana ko xam voilà <laughs> dina ko xam voilà li may li may li may wax nii ñoom suñ jóge ñoom xam nañ bu baax li may wax non mais si si xam xam <laughs> nañ bu baax a baax a baax li may wax voilà di nga xam ne kii lii mii nii jàngu ko wala boog njàngam dafa des wala jàngu ko ni mu ko waroon a jànge voilà peut-être am na ci may am na nii nangam mais déedéet kii jaarul fi ñun ñii ñun fi ñu doon jaar ñu jaarul ko <laughs> voilà dafay feeñ mais c'est dans toute chose nag lii ma leen di wax ni dans toute chose la loolu moom moo tax boo yaakaaree dara dangay def lii tax effort bii tax nga mën cee jot te xam-xam ak wilaaya ak yi ci aju yépp yépp nag yi ci aju yépp kenn du ko jotee ci ay ndeysaan ak ma bëggoon cëy suma sañoon yooyu ma yëw ko di gis li li muslim wax rahimahullah al ilmu laa yunaalu ma'a raaxatal jasadi dégg fekk boobu ndeysaan imam muslim rahimahullah mu wër moy hadithu ci tayammum mi muy jeexale bi mi jeexal affaireu timi wara yi dug ci walu julli kitab salat kitab tayammum dafa indi ay hadith yu bare bare bare parce que mu jeexal mais mu jeexale ko au lieu bu mi jeexal nak mune mu indi wax yahya ibn yahya ibn kasir rahimahullah mune al ilmu laa yunaalu ma'a raahatil jasad xam-xam kenn du ko am ak yaram wu sedd hmm. <coughs> déedéet foo déggee ni diw am na gis nga am na suñu benn paa bu ñu ko doon wax sama benn maam la mu ne gis nga foo déggee daw mi rafet na fecc mi rafet na jël bi maanaam mooy daan bi daan rafet na jooma fa bàyyi borom waaye xaw naa dee wala way yi neex na wala wala way yi neex na yii foo ko déggee xamal ne jooma fa bàyyi boroom waaye xaw naa de maanaam <laughs> maanaam yooyu foo ko déggee rek xama maanaam gars yi dañuy gis nii ci biti mu mel ni lu yomb gis nga tey boo ah booy xool sportif yi ñuy daw nii nga gis waa ji daw rek raw ñëpp dem kii nga ni rafet na nga foog ne waa ji soo nut deful kii xanaa du nit naa nga jooma ko fa bàyyi waaye xaw naa de voilà. ay reportage yoo xam ne nii waa ji. dañ koy wane six mois avant. voilà da gis day daw jour yoo xam ne day wàccu di daw di wàccu. soo mu arrêté dañ tëddi. effort bu bari la laaj. voilà loolu lay wax nag mu ne xam-xam kenn du ko am ak yaram wu sedd. mais borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy faral di dañuy xool dañuy dañu posé wu question ci wax jooju xam nga imam muslim rahmatullah bi mu bind saxiix bi 26 ans la amoon euh, mais euh, bi gaa yi de seet di laaj mais imam muslim rahmatullah parce que waxam ji amul rapport ak tiim amul rapport ak julli amul rapport ci affaire u laab amul rapport affaire julli amul maanaam xam-xam. et que te te xadiis yent bi saa salaam benn taabi'i la bu ñu wax Yaxya ibn Abi Kasir rahimahullah mu ne ah moom nee na xam-xam kenn du ko am ak yaram bu sedd mais lan mu lan la fi wax ji di def te imam Muslim rahimahullah daal mu faral indi wax yooyu noonu maanaam souvent wax yent bi rek sallallahu alayhi wasallam la daan indi ak mais lan la fi wax ji di def mais bi ñu ko settantalee dañ gis na dafa ci wàllu tiim xam nga xam xaalis yi wax ci wàllu tiim da gis ne dafa raar pour nit ki am ci maanaam surtout yi kii ba d'ailleurs la preuve en est imaamu Malik ci bopp imaamu Malik ak mooy imaamu Malik ak li ñu mën a wax yëpp ci moom rahmatullah alayhi am na xadis yu bari ci wàllu tiim yoo xamante ne moom am na yum ci gisul léegi euh, bi mu waxee loolu maanaam fekk ñu seetlu nga gis Euh, euh, nga gis euh, imaam muslim rahimahullah bi mu maanaam ñu gis ne xadiis yi mu indi ci wàllu tiim yépp dañu yi daf koo jële maanaam yi ay mi ko mi ngi ko jàngee yii yii mi ngi ko jàngee Sham yii mi ngi ko jàngee Iraq yii mi ngi ko jàngee Makka yii mu ngi ko jàngee Medina yii mu ngi ko jàngee fële ci côté ñoom Afghanistan yii mu ngi ko maanaam xadis yooyu yëpp fenn fu ci nekk ak fa nga ko jàngee mi ngi ko jàngee Égypte maanaam Misra nga gis maanaam dëkk yi ni ñu wute ni ñu sorente mais maanaam c'est si bi mu waxee lii daf la bëgg a wax ne dama gis nga xam-xam bii ma la tey nii tegal la ko nga mën koo liir yow xamal ne amee ak yaram boo seetlu nit mu def nii kii mais boo fekk xaw naa dee fu ne dem na ba. lu ne daj na ko te loolu da daan ànd ak te da ngay imaginer lu jamono jooju bu daan dem daanul yóbbu ay chèque ndax amul woon yoru woon carte bancaire nga xam ne fu muy dem rek ak am am ku ko yónnee kii nga xam ne moom dégg nga eh, xaalisam beeg wala mu am ay bourse comme niñ koy defee ñun léegi nga xamante ne yenn études yi soo koy def da am ay bourse ak yooyu loolu amul woon ah déedéet yooyu bu kenn yaakaar ne da dana ay déedéet aventure rek dañuy dem aventure rek <laughs> ah oui <laughs> ah oui noonu la daan demee donc voilà hein voilà moom Cheikh ci jamono noonu lañ daan demee am ah, aventure rek day gis nga kon maanaam euh, yooyu boo ko bëggee am fokk maanaam mënoo koo teg rek ci xemmem voilà dafa am yoo xam ne soo ko bëggee dafa dëgg faut payer le prix voilà il y a un il faut le payer léegi nag dëgg la yàlla yamalewul ci loolu am na ñoo xamante ne tuuti effort la ñuy am am lu bari am ñoo xamante ne même ci wàllu lépp la loolu déjà ci wàllu xam-xam bi ñuy wax nii tey boo xoolee kuy jàngale da koy xam kuy jàngale ak lu muy man a jàngale lu mën a doon da koy xam ku yor ay classe nii par exemple wala yooyu boo ko laajee instituteurs yi professeurs yi nañ la wax lool. am na ñoo xamante ne coono bu ndaw la ñuy daj ci booy booy xale bi coono bu ndaw lay daj loo wax mu jàng mokkal xam ko mais au moins dina ñëw moom mais kooku nag souvent tous les jours day ñëw dafay ne du absente souvent parce que su dee. ab absentéisme bi su baree da ngay gis day day day day décroché dootu accroché wooti waaye parce que dañu jàng lu bees lu mu xamul ay mbir yu bëri affaire yu tegalu dootu xamati mais souvent kooku noonu day gaaw a mokkal di gaaw a xam rek di fekke di toog lu ñu wax mu xam ko lu ñu expliquer mu mokkal ko loolu moom donc moom noonu la mel ce qui fait moom du def coono c'est-à-dire que après bu demee jarul muy nekk di def ay exercice di def kii moom bi mu génnee ci classe bi noonu noonu la pare dem doxi li muy dox après yeneen booy nekk fa di exercer wu di def di daj coono kii bu ñëwee moom mu jël pied loolu waaw yooyu loolu am na may googu am na même loolu may la mais il faut il faut que mu ne muy ñëw di jàng si loolu am na voilà kuy jàngal alxuraan tamit da koy seetlu day seetlu ak ay yeneen xam-xamu diini da koy seetlu tam ci xale yi am na ñoo xam ne ñoom dañ seenu kii dafa gën a gaaw ko ñeneen ñi voilà mais euh, léeg-léeg nga gis xale boo xamante ne daanaka xam-xamam maanaam bopp bi du fees moom day naqari deret day naqari xel mais nag da ci sawar mm-hmm. léeg-léeg nga gis ku mel noonu mais bu ñu demee da ngay gis au fur et à mesure muy améliorer wu tuuti tuuti amélioration bi nag du bari day tuuti mais ambition bay bari mais day jékki-jékki rek borom bi ubbi ko mel ni comme si li tëju woon ci moom dafa tijjeeku déclenché wu rek nga gis mu commencé xam lu bari loolu tamit day am loolu day am da ngay gis koo xam ne day nekk ci benn classe euh, ñuy def muy def exercice maanaam wala bokk euh, muy def ci benn matière ni nga gis mu ci def effort bu dul jeex mais du am mukk moyen mais bu ñu demee nga gis euh, bu ñu ubbee septembre wala octobre mu mun mu jàpp di def effort di exercer wu di teg coono di daj coono ci matière bi bu ñu demee mën nañ jàll ba semestre bu njëkk bi jàll te du am musu am moyen ci matière boobu mais gis nga ci deuxième semestre da ngay gis borom da koy ubbee au moins ci milieu deuxième semestre deuxième semestre day jékki-jékki rek affaire yi mel ni. mel ni dootu doon moom affaire yi naturel maanaam mu xam-xam bi di di di di di walagaan ci moom ci maanaam ci matière boobu voilà c'est effort parfois tamit mu def ko un an deux ans sur deux ans yoo xamante ne day nekk ci loolu rek sonn ci bay bëgg a dee du mut mais bu bàyyiwul day day ñëw bu bàyyiwul day ñëw voilà mbir mi noonu la demee loolu nag moom moo am. ci lépp ci wàllu yàlla tam noonu la demee voilà ci wàllu yàlla noonu la demee foog nga nekk ci buñ nee la tarixa bi li ci am nangam nangam boo ci nekkee nangam nangam mais au moins del wér di del wasifa del xadara au moins neel ci loolu mais boo ci nekkul ba pare toog naan lu xasax ko tarixa bi moom ñun ñoom ku ci bokk rek moom na mais te yow wirdo wasi faw xadar wa di fa dara mais kooku waxuñu la yow yow bokkoo ci ñi ñuy wax <laughs> ah <laughs> mais <coughs> bokkoo ak ñi ñuy wax ah ah bokkoo ci yaa un minimum dafa am un minimum ni ngay def voilà donc yaakaar googu il faut mu ànd ak jëf faut mu ànd ak pratique faut mu ànd ak engagement il faut que mu ànd ak benn conduite il faut <coughs> il mu ànd ak maanaam bàyyi yenn affaire yi mm-hmm. mais su fekkente ne yow lu ne maanaam toute chose rek obstacle la pour yow yow lu ne obstacle la pour yow lépp obstacle la mais sëñ bi yow yow yow loolu moom mooy jarul jarul en fait yow désengagé wul ci loolu yëpp nga nekk rek ci li ñëpp ne parce que da ngay tardel sa bopp en fait voilà mi ngi mel ni ab étudiant boo xam ne du jàng baax finalement lii gën ci moom mooy mu bàyyi quoi. parce que sinon day tànneel boppam di dem di dans école def examen du am il ne fait ah, en day tànneel boppam mais na dem wuti ji xaalis quoi moo gën a yomb ci moom c'est ça affaire yàlla surtout xam-xam surtout parce que moo ci gën a jafe wàllu yàlla yëpp xam-xam a ci gën a jafe surtout loolu boo ci engagé woo vraiment il faut que dara bañ a nekk sa obstacle sa diggante moom voilà dara bañ a obstacle parce que sinon doo ko am ah doo ko am da nga sa bopp doo ko am xoola imaginer su fekkente ne luñ ne ñoxal jaay rek nga ne waa non finalement moom xam naa ne dama koy foog ma ah, xaar ba suba luñ ne ñoxal jaay rek nga xaar ba suba ko non bu la sa kenn ay saa oh, waaw mais man dama bëggoon invité tey avant ah waaw waaw non waaw mais kon non sama kii bi xam naa li ma noonu kii dama koy ba suba dem bu beneen mais man dama bëggoon jaar sa gàlle ah ah daa ah waaw kañ kenn ah, waaw garaaw ñëwal ah kon na affaire naa ko bàyyi ba suba maanaam loolu. soo ci dëkkee jamais jamais nga jamais nga am xam-xam jamais parce que toute chose parce àdduna boo fi nekkee foog mu am ay affaires yu lay gaaral mais yow yaay xam ne man lii laa def priorité lii laa fi voilà nga toloo loolu mooy côté xam-xam bi léegi nag wàllu yàlla moom beneen affaire la moom dafa laaj moom dafa gën a laaj yeneen effort moom déjà ñi ngay àndal danga koy seet loolu moom mooy li nga xam ne moom moom moom mooy li nga xam ne moom c'est le maanaam c'est le baax nit ki bu bu bu jubloo ci yàlla bu jubloo ci lu baax ne commencé na léegi bëgg naa jublu ci yàlla première chose bi muy njëkk a def première décision bu catégorique bi catégorique bi muy njëkk njëkk njëkk mooy bi mu maanaam mooy bi nga xam ne manu ko ko baare décision boobu dafa maanaam sine qua non la mënu moom maanaam yoon wi ci boppam moo la ko mënta baal maanaam bëgg a baax non waxuma la bëgg bokk ci nitu yàlla yi de mais bëgg rek baax à peu près baax bàyyi yu bon yi nga nekki woon denn nag naa non yàlla nag am na non parce que nag il faut ma jaamu yàlla loolu laa wax de moi, dafa am non il faut que nga classer ko Moi, <laughs> fréquentation mm-hmm. il faut que ça xarit annuler liste j'ai mille amis euh, sont des camarades voilà non il faut les annuler annuler toute la liste toute la liste ngay annuler loolu mom c'est la première grande décision bi nga xamné so soo jëlagul décision bobu xamal ni ne gulo pour dem ci yoonu yalla xamu xamal loolu xam il faut nga xam ko nga nga nga intégré ko pareeguloo gulo donc nekkal ci caaxaan yi nga nekkee woon voilà c'est-à-dire c'est une forme de de parler hein nekkal ci caaxaan yi nga nekkee woon mais tout tout rek defu ko il faut annuler la liste intégralement après nak nga xolat nak léegi ay amis yu bees maintenant ci biir liste bi nga annuler woon su ci amé ño xamante effectivement gis ngeen ni ñooñu mën ngeen a jaar ci yoonu bu baax nga jëlaat leen nga jëlaat liste boobu nga jëlaat ca ñooña voilà <laughs> parmi les le reste ah, mais ce liste fréquentation say amis ñi nga andal ñi nga daan xamé say am di jamm yépp danga koy annuler nan la léegi di moom kenn mënatu ko dégg la moom daal léegi dafa bàyyi nit ñi waaye moom léegi kenn dootu ko gisati yooyu lañuy wax mais fokk ñu wax ko saa moom loolu moom mooy li nga xam ne moom la ko baal parce que dafa yanuwul maanaam maanaam parce que lu tax parce que dërëm ak dërëm ñooy ànd maanaam gis nga euh, <laughs> euh, gis nga euh, xar xar bu jappé ni mën na dem and ak ñoom gaynde day nax bopam parce que dañ koy la réré ah oui dañ koy réré té ben affaire amna no man gis nga bari nañu ko man je suis pas influençable dé man lo bu yaakar lool dé man ii man kenn mënu ma soppé man dama non lolu ku ko wax dafa wax li mu mais waxul dëgg képp ku ne man kenn mënu ma soppi waxul dëgg soppi ñi lay fréquenter rek man xam naa koo xam ne ndeysaan eh, ma koy doog a xam man am na ñu wuu bari ñu ma daan àndal sax wuu wala ñu ma daan xam ñu bare bare sax wuu saa <laughs> ño xamantene mais rapidement par une mauvaise fréquentation kenn kessé dañuy am comme fréquentation bu baaxul ci bir fréquentation yu baax yépp kenn rek ko dévier leen kenn ben Allah ben kessé lañu am bu fréquentation bu baaxul ko jël leen dévier waat leen ñu jàdd yoon ko totalement ah oui même parfois dañuy dëgër dëgër lok yoy mais mënul and du sotti na ne gis nga euh, am na benn maanaam moo tax lu lu mot a bàyyi xel la fréquentation ñu ngay àndal ñu ngay am relation ñu ngay demalante dikkalante da dafa mat a bàyyi xel parce que effet bi ñuy def ci yow effet la yow yaa jàpp ne noo kii amul effet ci man man nii laa mel noonu la garawul yooyu yaa koy wax mais bu ñu demee tuuti di nga gis ne loolu amul woon <coughs> dëgg am nañ effet ci yow te soo ci bëggee xam dara soo ci bëggee xam dara àndal ak nit àndal nit benn jamono di ndaw léegi nga gis ci sa comportement walla ci say waxin wala ci ni ngay xoole walla ci ni ngay tooge wala ci ni ngay yëngale sa bopp wala yu mel non no xamantene ne da ngay gis ne jógewul ci yow mais ci mom la jóge voilà voilà yow yow jàpp nga ni influencé wuñ la mais même ki nan man ken man man je suis pas influençable je pas non man man kenn mais loolu idée boobu fu mu ko jële idée boobu judduwul noonu de hmm. <laughs> <laughs> judduwul rek taxaw nan man ken man non non man non c'est parce que à un moment de sa vie am na ku wala ñu ko influencer ci façon muy xalaate non non ah mais waxuma la dara mais rien que rien que émission yi ngay seetaan ci télé rek dañ lay soppi dañuy soppi sa ay jikko rien que télé télé bi émission yi ñu ci seetaan day sopp sa jikko waxuma laa koo xam da ngeen di fréquenter di déggante am di jàmm nek ay xarit et cetera faut faire extrêmement attention ci buntu c'est le point le plus sensible c'est le point bi nga xamante ne mom moom faw nga régler bala nga dem bo bo boo boo ko réglégul nag bul départ amna do dem fenn non vraiment fenn nga demut fenn lool fo nga rek la na wala voilà innal qarina bil qarini yaqtabi amna way bi ka way nako naka la ko waxate noonu la ko jeexale en tout cas innal kharina bil qara'ini yaqtabi wala wala na xarit day day day day day roy ci xarit xaritam bu bul wax ne rek ne ne dedet buluah bul wax rek ne man ken monuma soppi ken monuma ki ndox ndox ndox lu ci dugg da soppi wala lu ci dugg rek da soppi voilà mu ngoog al jaar al jaar voilà dë dëkkandoo ngay njëkk a kër gi ngay dëkk. waaw. te balaa nga koy xam balaa nga xam ne xoolal imaginer tey gis nga bëri na ñoo xamante ne fi mu toll coow lee leen ci yóbbaale rek coow la moo leen ci yóbbaale mais li ñuy wax homosexualité en tant que tel wu leen. soxla leen ci yóbbaale ak naan waaw homosexualité baaxul ah nangam mais en réalité une bière, ñi ngi nan seen xel mais non pourtant dara nekk ci mais c'est son choix hein. si ak bari loolu man li ma lay wax nii lu bari bari la bu jeex bu xat donc pourtant defuñu kenn dara hein. ils n'ont pas fait de mal c'est leur choix de vie non <laughs> mais buñu ñu nii comme fu mel ni jotaay bi jo mu mununoo wax loolu fa faaw ñu ne ah homosexualité da ngay waaru homosexualité baaxul nangam nangam mais ci seen biir seen fort intérieur daf leen di wax ne leen bu ñu leen waxoon na ah, non mais nag mais sincèrement nag bon xaw ma nag lan lan moo ci bon na parce que euh, defuñu kenn dara am na pourquoi mais où est problème ce son choix dafa bëgg nekk homosexuel mais dañ ko baye mu nek homosexuel qu'est-ce qui se passe où est le problème rayul nit ah deful ken dara mais euh <laughs> gis nga lool <coughs> waaw mais mais lool lan motax lan motax affaire bi accepter manam xolu nit ñi accepté ko du bu fréquentation bu dul milieu bi ñuy évoluer lan la seul milieu bi ñuy évoluer moo tax ñu ñuy xalaate loolu kese suñu woon loolu jamais jamais jamais comme li Seydina Omar ibn Abdul Aziz waxoon radiyallahu anhu mu ne mu ñun am affaire yëfu xaw ma luutu homosexualité mu ne bu dul woon li li ko alquran tudd suñu xel lu dem ci existence am bu loolu li ñu ko Alxuraan nettal suñu xel du dem ci existence mais c'est vrai en plus mais léegi moom moom moom Alxuraan nettali ko mu ñàkk koo nettali ci yow existence moom c'est une réalité maintenant nag li lay jaaxal mooy naka naka lu di nekkee maanaam naka ana naka <coughs> man moom loolu mooy li ma mënta résoudre énigme boobu laa mën a gën a résoudre sama bopp bi ba léegi ana la nit <laughs> di mën a toogee ni choisir ne man homosexuel lay doon maanaam <laughs> eh? <laughs> non loolu ba léegi laa xamagul naka ana nan rek la ko xel non mais non ba maa ngi jéem a comprendre ah mais dama ko mënat en fait. <laughs> Eh? tellement que c'est problématique mais mais mais mais xoolal xoolal euh, <laughs> euh, voilà cest à pour wax rek ne maanaam jikko yi euh, surtout ñaar moom soo ko bëggee jub. ak xam-xam ñaar yooyu première décision bu grande mag bu mag li nga war a njëkk a jël mooy sa liste fréquentation yi ngay annuler waaw faut tout annuler bi yëpp danga koy annuler après nga commencé xoolaat naan ana laa ci mën a dugalaat tri voilà voilà ah, waaw waaw kii day moom day gis nañ ne moom juba ko intéressé mbaax a ko intéressé xam-xam ko intéressé nangam nangam waaw kooku mën naa ko jël waaw kooku mën nañu waat te kan? euh, ak kan ak kan euh, ak kan ak kan ak am na keneen ko xam ne tamit kooku tamit ko intéressé wax voilà noonu ngay def après nag effectivement da ngay changer maanaam day mel lu radical c'est-à-dire ñi nga daan gisi doo doon gisati ñi nga daan dégganteel dootoo leen déggati fa nga daan dem dootoo fa demati ñi la daan seet si nga leen di seeti dootul dootul la nekk même personne yi loolu yëpp dootul nekkati. voilà sa àdduna day soppeeku mais c'est comme ça soit loolu la wala ñoom ñoo lay maintenir ci. ci seen àdduna bi ñu <coughs> ngay jéem a soppeeku ñu lay jéem a xëcc ngay jéem fipp de toute façon à un moment donné il faut faire ce choix comme jigéen juy sëy rek comme jigéen juy sëy voilà ak bàyyam di dem sëy ji noonu la <coughs> obligé lan fa mu dëkkoon du fa mën a dëkk mënoo mënoo dem dëkk ji sa kër jëkkëram ji nekk Kébémer te yow ndakaaru nga dëkk nga bëgg luñ ne ñoxoor jaay nga nekk ndakaaru manta ne maanaam fii nga sëy si Kébémer nga sëy si mais eh fi ngay toog voilà fii fii ngay nekk voilà ah oui mais maanaam il faut que da ngay cest à changer milieu c'est milieu de changer obligé parce que yow ya des choix dans la nga bëgg y ya def choix donc choix bob so ko ba def dafa am ay conséquences ni muy moy da ngay ce sa kër ak voilà dem voilà c'est ce que cela implique impliquer non voilà bu demee kër ndeyam a bàyyam rek dana ne seeti muy dëkkatu keurum fële la ñoom sax loolu lañuy wax keur diw <laughs> voilà voilà parce que loolu impliqué c'est ce que cela implique yooyu ñooy and ce que cela implique njub ak mbaax ak xam-xam noonu la mel soo nee danga ko bëgg rek ba war cee jublu rek ah yow yaa yow yaa du yow yaa yow yaa engagé wu ci loolu mais le problème mooy ce choix là du luñ la tànnuloo dafa obligatoire. on ne connaît pas le choix. voilà d'où première étape bi mooy lan tuub. dellu ci yàlla tuub te tuub première étape bi mooy lan mooy nga bàyyi li nga nekk moom ci caaxaan loolu mooy saas bi <coughs> d'abord da ngay rëccu <coughs> li nga nekk da koy rëccu oh su démb doon tey moom duma ko def en fait tuub boo koy xool suñ ko doon exemple bi ñu ko mënoon gam gam leer mooy comme réchaud xam nga réchaud yii nii plaque euh, plaque loolu tuub mooy comme si nga tegoon sa pla sa loxo ci palaat bi yëkkati ko mm-hmm. loolu mooy tuub maanaam bu ma ko ci tegee déjà bu ko lakkee damay njëkk rëccu bu ko yëkkatee ay ko damay rëccu li taxoon ma teg ko ci loolu mooy première étape maanaam kon lu bon la ma nekkee woon dama koy rëccu mais rëccu bi day sincère parce que le fait que ma jël sama loxo teg ko ci palaat bi mu lakk ko rëccu boobu may rëccu dafa sincère bu démb doon tey duma ko ci teg du dëgg après ma bàyyi dootuma ko ci tegati maanaam ci saa si laa ko war a yëkkati bopp ci saa si laa ko war a yëkkati mooy kon damay bàyyi mooy yàlla gi ci saa si su dee tuub mooy yàlla yi ma nekkee dama koy bàyyi léegi amul naan non naa xaar bon j'aurai le temps voilà temps bon xam ah, nga je ne suis pas encore prêt et puis voilà déedéet xam nga loolu moy comme lan tay bu ma tegoon sama loxo ci taal ni mako ko tegee ci ci ci ci réseau mënuma toog naan pare buma non pare buma pour yekiti ko j'attends j'attends encore quelques moments j'attends non amul j'attends léegi léegi la ko yekiti ci saa tout non la demee manam tout à part de tey nii nga naan la j'ai pris la décision et c'est bon je du ma ci revenir le décret bi signé nako ko arrêt la signé nako ko c'est bon lol tout tam non la dem amul xaar parce que le fait que ngay xaaraat benen jamono yéexi gogou tout yéexi tout gogou lol ci bopam benen bakar la bo xam après da nga cee war a le fait nga toog ne tuubaguma loolu ci boppam beneen bàkkaar la encore xam naa ni li ma nekke baaxul mais ma naaxaat naa loolu ci jëmmi boppam bàkkaar la loolu rek en tant que boo xam ne parfois sax mooy gën a garaaw jëmmi def bàkkaar bi donc loolu muy beneen deuxième chose maanaam du ma toog naa oh bon j'attends un peu ah, pour pour sama loxo j'avais comme maa ko ci doog a et puis bon je ne suis pas encore prêt je vais attendre loolu yaakaar naa ni ah beneen bi ci des moom mooy ma am yéene ci ne sama loxo bii de ak ni ma ko ci tegee ni mu mel fas naa yéene ni dootuma ko ci tegati loolu tamit beneen ci la moom fii ba àllaaxira dootuma ci tegati sama loxo bi. muy beneen étape ci tuub maanaam mooy lan mooy bàkkaar bi ma nekkee woon moom fii ba àllaaxira dootuma ci dellooti waaw loolu bu ma ko defee man loolu moom mooy tuub naa maintenant nag mu am yeneen yu ci ajoog yooyu yoo xamante ne léegi dafay aju ci lenn lu ne ak ay particularités comme tey par exemple bu fekkente ne lu ma jël alalu jàmbur la yu ma yoroon wala ma tooñoon diw yooyu ma dem baalu ko ak wala ma der delloowaat ko alalam wala yu mel noonu et cetera ma delloowaat li muy toppee wala yooyu et cetera wala ma réparé waat benn injustice bu ma créé woon wala yu mel noonu loolu après yeneen affaire la ala kulli xaal mooy yaakaar boo yaakaaree am dara foog nga def luy tax nga am ko soo yaakaaree xam-xam soo yaakaaree njub soo yaakaaree jaar ci yoonu yàlla foog ngay jublu foog nga def effort bii war a tax nga mën a jot ci loolu voilà te c'est important ay fuma sañoon ak a neexoon way waay ma ko boy ma bëggoon way way way way way ki déedéet loolu mayul kenn dara loolu mayul kenn dara tay fim toll ngi ni ma gëna bëgg ay milliards ni instant bi ni mënu ma ko am lutax parce que defuma lutax ma am ko buma togon toogoon di di bu ma bu ma man ko am nak dana xëy dana ko am ma meuna yaaka yaakaar mais instant bi mo toge diko bëgg ni rek loolu mo xëy na rek la tuddu waay waay saa yi lool. ndax xam naa ne milliards yi may dégg. xam naa ne bu ma joxoon benn bi rek dina baax ci man mais loolu taxul ma am ko maa ngi ni depuis boobu léegi saa yu ma seetaanee journal ñu wax fii ay chiffres boobu ak yooyu ah du doon gis ma naan ma joxoon benn wala ñaari mais ba léegi amu ko que démb lu tax ma am ko. un milliard yi xam naa ne bu ñu ma joxoon benn bi sama affaire baax wala sama yu bari dana noddante ko mais loolu taxul ma am ko mais <coughs> loolu xëy na rek la